Bonjour, chers amis internautes de 3W, Senclic.com. Euh, ci quatrième édition salon international des professions de l'économie numérique euh, madame Diouf ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm bi nga dégloo euh, discours premier ministre ba pare lan nga ci jàngat ci wàllu numérique. oui euh, monsieur le premier ministre lu mu wax lu rëy la lu rëy ci numérique parce que boo leen xoolee numérique lu muy def même salle bii ngeen nekk numérique moo ko couvrir. donc tout de suite egg na fu mu war a egg donc numérique mooy def vente mooy def achat léegi kenn sonnatul numérique lu muy def ci àddina euh, yàlla ñun ñëpp ñu egg ci ak jàmm ak salaam ndax numérique non seulement numérique bi mais comme premier ministre lu mu ko waxee aussi mu ngi wax les femmes dans l'entreprise mu ngi wax jigéen ñoo xam ne tey euh, coûte à coûte la ak homme donc boo xoolee tey ci militaire yi yéen a ngi gis ay jigéen yi jàmbaar yoo xam ne léegi ñu ngi jël ay poste de responsabilité par exemple si je prends l'emploi ci man man euh, fii au Sénégal métier bu may def amul benn jigéen bu koy def et je suis dans un milieu très grand vaste boo xam ne góor yi dong ñoo fa nekk donc euh, lu mu wax fii am na solo jigéen yi nañ góorlu nañ nekk jigéen yi jàmbaar pour euh, appuyer le le donc lu muy wax emploi moi par exemple minimum bu may développer damay jël deux mille personnes yoo xam ne dafay liggéey ak ñun donc euh, loolu ay jàmbaar dëgg moo koy def donc lu mu wax nii dégg nañ ko rëy na torop ci numérique ak l'emploi des femmes et l'emploi des hommes donc am na solo wasalaam